Euh, ma terminer par loolu. Mm-hmm. Euh, am nga journaliste bu doon liggéey ak yow. Mm-hmm. mu di Serigne Saliou Gueye. Mm-hmm. ñu teg ko loxo euh, muy suñu aîné ñu koy masawu ñu accuser ko ñaari mbir benn bi ñu ne du journaliste beneen bi ñu ne ko offense à à à à magistrat maintenant sur le délit d'offense à à à magistrat mënuma ci sori. mais sur le sur l'accusation euh, relative à sa en sa qualité de journaliste ou, ou, ou non euh, est-ce que loolu yow ça te pose problème. ça vous pose pas problème vous. non Bougane c'est pas moi. non vous, vous êtes de la corporation. ah oui yow fi mu nekk nii yaa nekk ci corporation bi man nekkuma ci corporation. non waaw mais vous êtes un un, un, un homme. de non, un, un patron. un propriétaire de média yow. yow yaa man ça me pose problème xam nga ça me pose problème ah, et ça à le dire ah, cest man ma yeewu Sénégal ñu ne ma sëñ Saliou Gueye du journaliste donc kuy journaliste ça veut dire ñun ñëpp on est en danger la carte la la détention de la carte de presse ak situation bi ñu koy condition yi ñu koy joxee mënuñ ci tëb tëb rek ne nit doo nekk journaliste mais yow la la laa ci recueillir sa xalaat ma xalaat mooy Serigne Saliou a toujours dérangé le régime de ma Sall et c'est pourquoi je vous dis c'est pas un gentleman Serigne Saliou dafa nekk biir des médias nekk chroniqueur non les position de Serigne Saliou tout le monde sait que àndul ak man. arrangé wu la. tout le monde sait que àndul ak man et pourtant il me suffisait d'un coup de téléphone. pour woo la direction ne leen diw mii bu mu liggéey si ngoon mais bu boobaa mais yëfi jimboori ngay def. pour àndu àndul ak man ñëpp xam nañ ne àndul ak man mais conférence de presse bi ma doon def le 4 mais dañ ko invité mu ñëw toog mu posé ay questions et c'est ça gis nga cër bi la yàlla jox moom ngay muñe li leen nit ñiy def yàlla bu la joxee li mu la jox joxu ko say moroom ah il faut nga mun a am de la hauteur. nit doo ko jiite rek ni ko comme dama la jiite li ma bëgg ngay def moo tax ma ne la man ak politiciens yi mënuñu bokk nu ñuy xalaate man duma nekk ci calcul nekkuma ci logique gu calcul nekkuma ci logique gu damier man lépp lu may def rek dama koy def parce que dama am su ma aqulaay taalaa dama am conviction par rapport ak li ma jàkkaarlool mais Serigne Saliou il a toujours dérangé le régime c'est d'ailleurs la la même situation au niveau de la ligne éditoriale de des médias loolu moo topp tey jii waa Walfadjri ce qui s'est passé à Walfadjri mais c'est un danger extraordinaire quand j'ai entendu le CNRA ñu ne ñoom coupé wuñu signal bi mais il faut qu'on sache kan moo coupé ARTP moo coupé mais ARTP ban prérogative la am pour couper signalu télé mais ce pays est en train d'aller dans tous les sens pëcc xoo la ñu nekk sabar gu tas xam nga sabar bu xumbee ba ñëpp dugg ci diggu sabar bi rek mooy sabar bi jeex na et c'est ce qui est en train de se passer. alors Bougane comment vous pouvez expliquer qu'un démembrement de l'État une agence nga xam ne amul benn lien la RTP amul benn lien avec les télévisions comment la RTP peut Amatou. amul. amul amatul oui amul la la. Ah. amul la. depuis la réforme. non dama ne la la RTP amul benn prérogative pour couper signal et ça j'espère que suma rak Euh, Cheikh c'est un homme de droit c'est un avocat j'espère qu'il va porter l'affaire devant les juridictions de ce pays parce que l'ARTP n'a aucune prérogative bu fekkee ne ARTP moo ko def amuñu benn prérogative pour couper le signal de alors, de de Walfadjri et, et c'est un précédent dangereux très cher bu fekkee ne kenn ku nekk mën nga toog fi la neex jël décision parce que tout simplement ñii ni ñuy traité nangam wala sangam neexu la mais un état ça se gère pas comme ça